chers internautes yu KSTV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dal leen ak jàmm xibaar yi tey juróomi fan ci weeru juin euh, ci li gën a fes nag ci xibaar yi ñu doore ko nag ak état bu Sénégal bi nga xam ne kon jot naa amee ay koppar yoo xam ne nag dana duggaat ci gafag ak réew mi ndax nag li ko sabab bokk na ci réew mu Sénégal daal dinay conclure ak succès lu jëm ci émission eurobond euh, ba tax nag euh, kon am na ab koppar bu toll ci 750 millions de dollars loolee nag ba ñu ko xaymaa 450 milliards euh, francs euh, CFA bu ñu sukkandikoo rek ci ay xibaar yoo xam ne boo euh, kon fësal nañu ko bile opération nag tax ba réew mi Sénégal nekk nag ñeenteelu pays d' Afrique subsaharienne boo xam ne daal dinay dugg ci marché eurobond ci ak mile gannaaw réew bile di Bénin ak Côte d'Ivoire ba ci itam Kenya ba tax na nag li mel nekk nag ab succès ci jamono joo xam ne sax réew mi kon soxna na lool koppar jëm rek ci liggéey yi nga xam ne nag mooy xaar état retour sur le marché des eurobonds nag euh, muy rek euh, kon euh, lu jëm ci première émission internationale bu Sénégal li ko dalee atum li ko dalee donc ñaari fan ci weeru juin atum deux mille vingt et un ba tey nag ñu wax ci wàllum xibaar star réseaux sociaux bi la di Xabila moom nag sàkku na ci waa Expresso ñu fay ko lu toll ci fukki milliards ci franc CFA moom célèbre tiktokeur bi la sax dafa daal di ab assignation ñi nga xam ne ñoo di waa Expresso mi nga xam ne nag joxoñ baaraamu tuuma ne daal bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu libération dañuy rek jëfandiku image am di ko wasaare ngi rek lu jëm seen stratégie de marketing ci anam boo xam ne tegul ci yoon ci fàttali nag moom xabilam di ab tiktoker ak euh, ñi nga xam ne nag moo di waa expression euh, jotoon nañu nag euh, amal ab li nga xam ne daal moo di ab contrat ngi rek kon daal di liggéey ba tax nag ñi nga xam ni ñoo di waa Elon Corporation di ab structure bi nga xam ne mooy influenceur euh, bile ci boobee contrat nag nga xam ne si woon nañ ko ak waa Expresso tolloon ci diiru benn at euh, ñu moon ko nag ñu ko fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier euh, loolee nag tolloon ci koppar lu toll ci quatre-vingt-dix mille euros maanaam lu toll ci soixante millions francs CFA. ba tey nag wàllum xibaar chers internautes ñu daal di wax nag ci maire bu Dakar di Barthélémy Dias mi nga xam ne nag daal dinay lancer ab projet bu yaatoo yaatu ñel nag installation toilette publique mbedd euh, ci commune yu bari euh, ni ki euh, démb sax nag kon amaloon na ab visite de chantier ngir nag xool liggéey yi ana rek fan la daal di toll ci commune bu Patte d'Oie ak Yoff maire bu Dakar nag daal dinay rafetlu bu baax a baax lu jëm ci avancement travaux yi rawatina ñi nga xam ne ñoo di service bu ville bu Dakar mi nga xam ne sax moom daal dinañu xam ne ni bi projet projets kon dinañ ko gën a yaatal ci yeneen ci ay commune ndax nag mbébét bi bokk na ci daal di lu toll ci ñaari téeméer euh, ci ay duusu mbedd ngir rek gën a daal di taxaw lu ñeel euh, bëgg-bëgg askan bu Dakar waaye it euh, gën a ñoŋal lu ñeel seen nekkin moom daal loolee la daal di xamle moom Barthélémy Dias di maire bu Dakar ñu jeexale xibaar nag ak koo xam ne dañu ko fekk nag mu daal di faatu anam bu doy waax la ca am nag mooy moom dafa dañu ko fekk kon ñu daal di koy lakk li ni nag ca village bu Ndiagne la daal di xewee nekkee ca route bu Thiès maanaam di Tivaouane bu ñu xibaar yoo xam ne waa agence presse sénégalaise ñoo ko daal di euh, fësal li taxoon ba waa police scientifique kon demoon ci fi nga xam ne mooy fa xew-xew ya daal di amee ngir nag mën a identifier kookee nga xam ne nag moo daal di ñàkk bakkanam ci anam yu doyo doy waa naam nag jamono ji yooyee anam sax maanaam circonstances yi xamaguñu ko waaye lu ci am te leer mooy enquête bi nag daal di ko ubbi ngir nag gën a xam euh, lan moo daal di xew ci bile mbir bu nag euh, ci ay xibaar ci wetu kookee nga xam ne dafa daal di ñàkk bakkanam ak brique boo xam ni dafa daal di takki deret loolee nag mu mën a bàyyi ci xel ni daal ab agression violente la ñu ko daal di def laataa rek ñu koy daal di lakk loolee nag sax ba village bi la di Njañ ak nag li ko wër nekk sous le choc ba ñu xamee nag bile xibaar luy am teleer moo di enquête ba nag ma ngay daal woy wëy mbokk yi fi la ñeem ak yéen xibaar yi tey juróomi fan ci weeru juin ñu joxante dig daje ëllëg ci yeneen i xibaar laata loolu way leen di abonné suñu chaîne KS TV ngir dale bañ leen a arrêté ci xibaar suñu ay programme jërë ngeen jëf